واجبا دايلا ويا ما خسر الانس والجنين رسول الله اليكم واجبا دايلا ويا ما يشرف وسين الله leeral nga sa wutig maam ba nasaraan baa ngi wuyoo laay Matar laay Mamadou Matar laay Sénégo Seydina Limaamu asalaamaaleykum euh, mbokk internet Sénégo tey nag euh, muy bis bu spécial ñuy euh, wàccaayu appel Seydina Limaamu Sénégo def déplacement jël artist bu ñu naan Djibril Diop dañ koy bàyyi Djibril Diop mu nuyoog internet Sénégo yi. waa salaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégo. di leen wax ni def ngeen lu rafet yal na leen yàlla yëkkati ci barke Seydouna Mohamed comme ni ngeen ko waxee rek ñuy waajal appelu Seydina Limaamu yonent yàlla bi sallallahu alayhi sallam ki nga xamante ni mooy bàyyi Seydina Issa Rouhou Lahi maami Sërif Ousseynou Laye sama sang bi docteur de la jeunesse maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama fans yi. waa appel bi comme ni ma ko doon waajale rek xam nga man taalibe Cheikh laa doon taalibe Serigne Babacar Sy ma am ak ay relation ak waa kër Seyna Limaamu kii feeñu ma kii feeñu ma kii feeñu ma tey ba woy wi ñëw tey ba ñoom ñi tax ma doon li ma doon maa ngi koy waajal bu baax a baax ndax dama kañ koo xamante ni depuis 2011 la woon teraanga bu ma am ci morceau boobu laa ko amee kon maa ngi koy waaj bu baax a baax a baax a baax di ko sellal di ko waaj maag sama njaboot ak sama gàngoor waaw hmm. waa kër hmm. Hmm. foofu li ma ciy wax nañ ma baal nag man dama daan def su ma mësaan seetaan waa kër Seydina Limaamu ñu su ma gisee rek damay zappé xamuma woon nañ ma baal yàgg naa ko wax gis nga yonent yàlla boo ko fenelee yàlla daf la koy wan te barki Seydunaa Muhammad bàyyi laay mooy rasulilahi ba ma ko dolee wax ba tey guddi yi laa gën a mën a way guddi yi la laa gën a am force guddi yi laa gën a am forme kon li may wax dafa dëggu ci man dama tëdd ba guddi Seydina Isa ruuxu feeñu ma maa ngi sol caleçon bu bula mu teg leket def ci ndox sotti ma ñetti koogu ndox kooku yooyu ñuy togge fonde mu jékki-jékki téye sama loxo joxoñ saw bi na ma wayal dus bu rëy ñëw muur nu man ak moom ak garaat yi xamoon sax mooy Seydina Issa ma xëy ci fajar gi añu ma ndékkiw ma ma dem di wëri waaju naan libaas mbub moom laa naan sëriñu libaas mbub jal mbub ak jal ci am ñu ne ma libaas mi ngi Malika ma jóge postu caare dama dawee postu caare ba Malika bi ma ñëwee ba Malika maa ngi fekk libaas mbub ci ay benn kër bi ma ñëw ba ci buntu kër gi rek photo Seyna Issa bi ma gëntoon moom laa fekk ci buntu kër gi ma poñe libaas ne ko waa yow kii mooy Seyna Limaam mu ne ma Seyna Limaam mu amul photo kii mooy Seyna Issa Rouwalaay Seyna Issa jox ma ndigal na ma woyal bi ma ñibbisee ma toog dégg coon sekk way maam li maamu ñeneen artiste way ko sama soxnaa ngi toog sama yet ma ne ko jekk bés bu ma woyee bàyyi laay keneen dootu koy mu tombek aminu sunu borom bi ma génnee moo so maam li maamu ba ci digg promotion bi ci promotion bi ma feebar ba paralysé quatorze heures et demie lañ may yóbbu ma hôpital médecin yi ñu ci man benn feebar bi ma tëddee ban montel ma prévision yi Serif Ousseynou Laye moo ubbi bunt bi te man Serif Ousseynou Laye xaw ma ko benn yoon laa ko mës a gis dëju Papa Ngom su ma doon kañ damay fekk suma maam ndax sama maam moo moo moo daggal Seydi El Hadji Malick Jawiya bi ci Ndakaaru bi ma nekkee ci hôpital bi Serif ubbi bunt bi dugg ne ma jibil Diop ma ma siggi xool ko mu ne ma man maay docteur de la jeunesse ak bàkk bi nga ma bàkk ñu lay fexeel du luy am mi ngi ànd ak Serigne fàllu Mbacké Serigne fàllu Mbacké mi ngi sol caaya ak jàmput def bopp neen leel bi def nii Chérif xool ko ne ko Mbacké balay sa ba sëñ fàllu nekkoon ko naam mu ne ko demal dindil ne ci Jibril mu digal ma leneen ak leneen ne ma naa dem këram loolu soo ko waxoon Sénégal gi dañ naan wayaan la wala bës te barki Seydouna Mohamed man Chérif dafa ma defar ba ma xam ni Chérif dafa maa defar ma am doom tudde ko Chérif Ousseynou Laye avant boobu dafa am benn sëriñ bu mag bu naan Ibou Pouy nekk mbaaw grand mbaaw adduna bépp di fa dem yàlla jox ko xam-xam bi ma nekkee ci tool bi ma dugg biir këram bi ma ñëwaatee ci su mu jox ma rendez ma ñëwaat ci suba bi Ibou Pouy ne ma yow lan nga àndal ak ban nit ma ne ko en ah, lan la ma ne ko man doomu lébu laa ànduma ak dara mu ne ma da jóge sama kër biig ma tëdd di nelaw Chérif Ousseynou Laye romb ñëpp ñëw ba ci yow di la takkal garaat ma ne ko en ah, bon mu ne ma waaw ma ni alhamdulilah te boobu sama soxna mi ngi nekk jigéen ju bi ma fa jógee deux jours sama soxna am doom te dama mébétoon doom ji Serif Ousseynou laa laa koy tuddee li may wax utuma ci lenn man yàlla mi ngi may teral yàlla yaa laa yaakaar yaakaaruma kenn yonent bi màkka la juddoo mais wootew fa ngir ay noon yonent bi papam mi ko jur amul sallallahu alayhi wa sallam mais Seyduna Muhammad am na sallallahu alayhi wa sallam nit di nga dëkk am kër goom taf ko ba ci xabru Seydina Limaamu wala nga jàkkaarloo xabru naa Isa te bu amul ci yow soxla amul ci yow soxla am na ñoo xamante ni ay ay pion yi sërf Ousseynou laay lañ ay pion Seydina Isa Rohou laay lañ te man damaa dem ba reconnaître xam ni man am naa cër ci sërf Ousseynou laay man Djibril Diop foofu la tàmbalee taxul nag ma sol sama dàll di kii bi way bi amee bi ma defee loolu ba te dama toog ci sama ruk sërif di ma wax lu bari te ku ma teral ci ci ci ci barke sërif la ma teral di ma won ay nitam nag ay nitam dëgg dëgg Chérif mi ma koy wan ci yoon benn bi baatam bu naan Birama Niang dafa dëkk fii sama oto 20 millions lay jar bi ma ko indee nit ñi dañ ma doon wax naan jaay ko ndax essence bi day consommé ma ni leen du ma ko jaay dañ ma ko jox dañ ma ko jox ngir addi Chérif Ousseynou Laye te heure bu ma waree dem fen Chérif dina ci sol dina ci sol essence bi ma ci war a sol barki Seydouna Mohamed looloo tax ma gëm ni bàyyi laay mooy Mouhamadou Rasoulilaahi Chérif Ousseynou Laye ma gëm ni Chérif Ousseynou Laye Seydina Issa Rouhou Laye mooy baayam kon alhamdulilahi rabbil alamin ñii weddi danoo xamul rek mais barki Seydouna Mouhamed bàyyi laay mooy rasulillah su ma amuloon fu ma jaarak moom du ma toog di ko mais dafa am fu ma jaar moom mu woon ma pire ku ko gëm xayrun ku ko gëmul xayrun ba ma ko dalee wax ba tey maa ngi gën a am force maa ngi gën am forme bàyyi laay mooy rasulillah gëm naa ko man noonu ñooñu chaque jour damay waaj parce que sama album mi bi may bi ma doon enregistré nii benn surtout Seyna Issa jàppoon na ci ñu naan ko Serigne Assane Gueye ma woy ko ba pare ban war a nekk ci clip bi topp moo ko doon tourné mu pare pare na bu yàgg mais dañ daf ma joxagul woon digal pour ma génn affaire bi man chaque jour fu ma nekk maa waaye mais am naa ay doomu bàyyi am naa am naa am naa ay mbokk yu ma war mais Chérif ku la ku defal loo xamante ni kenn mësu koo defal da koy fay lu ko kenn mësul fay te bakken dafa foor yàlla moo moo sàkk bakken moo ne xat karam naa bani aadama moo tax ma am doom bu góor tuddee ko Cheikh Ousseynou Laay chaque jour ci ay mbiram lay dox ci ay mbiram lu ma ko war a way ci lay dox ci moom lay inspiré woo man ak moom la nit doxul suma diggante man ak moom billaahi wal kitaabi mais sëkk nit day dem ci sëriñ sëriñ boo xamante ni papaam du yonent du dara sëriñ nii rek nga gëm ko jàkkaar fotom ñaan ci mu am waaye est-ce que kooku doomu ku Seydina Muhammad di sa maam Seydina Issa Rouhou Laye du sa di sa di sa wayjur lu raw loolu ah ku doomu sëriñ di defar ba ngay lappi-lappi man sëtu Seydina Limaamul Mahdi yu doomu Seydina Issa Rouhou Laye moo ma defar muy Cheikh Ousseynou Laye ay am mhm. boo xoolee ba tarixa bi li ma ci gën a neex ñi ko doon laa la wax waxuma la ñu koy doon doon de foo leen fekk ñi ngi wax baatu laa ilaha la ma am ci ay xarit Ibou Sakho laay kooku bi ma demee dama toog këram ci sama biir feebar bi mu ne ma boo feebaruloon da nga doon deewi te fii ma leen indi tey sama taawu yaay bii bi ma feebaree dafa gént sama yaay sama yaay gaañoo na depuis 2010 nee na mu gént sama yaay jóge àllaaxira rek dekki làmmiñ bi di lang ba ci tànk bi mu ne ma man lay jëlsi ndax coono bi ma am fii ci daaru duniyaa sama mag manu ko mu ne ma bi nga dawee dem yoofu nga sauvé li may wax uti ma ci dara man sunu borom mi ngay teral barke naa Mohamed loolu ma gën a neex ci ñoom dafa am ñoom tamit ni laayeen bi ñuy wootee dafa ne ci ñoom puukaréwunu ndax yàlla moo ni laa tam sifil ardi maraxan ku gëm bàyyi laay dëgg loo wax danga ko def ku gëm bàyyi laay dëgg doo puukaréw parce que yonente bi xamul woon puukaréw da dafa doon toroxtu lu ba bañ koy owee alfaqir ku ñàkk ki looloo ma gën a neex ci ñoom ci laayin original yi nag dafa am ñu koy mbubboo am ñu ko doon ñu ko doon laa wax man looloo ma neex ci ñoom. est que premier jour ba may dem di ziyaare ji foofu damaa doge ci Serif Ousseynou Laay ak Seyna Issarou Laay damaa dugg si am ku ma àndal ma ni ko mais yaa ngi sentir fiix mi nekk fii te ñun bi nuy ñëw danoo danoo tàng ba jënd wantaay ci biir oto bi. ma ni ko kii mooy kii mooy Seydina Issa Rouhou Laye mu jóge fu mu yóbbu ma xabru Seydina Limaamul Mahdi ci biir xabru bi ma siyaaree bay jóg di génn ci morso bi la ma nit dab ne ma sama maam nga way sama maam man bàyyi laay mooy suma maam jël sama numéro ooma ñu daje fii tey toolu Ablaye Wade bi fii ci Kër Massar mu ne ma dama lay may terrain mu ne ma ñaari terrain ngi tàll si bu la neex ma man ko ku ñuy may doo taamu tànnal ma rek déglu li ma lay wax bu baax te boobu ñaan naa shérif sama digganteeg ñi may fexeel ak ku ma yéene jàmm nga yéene ma ay dama ko dogu man ñaanu ñaanuma alal ma dara naa naa défendre suma bopp rek. waa jooju bi mu waxee loolu mu may oo ñu jóge ci terrain yi ñu ñëw ñu dox ba Kër Massar fii tey mu ne ma dafa war a jënd timbre benn mille moo nekk suma poos ma yëkkati 10 000 francs bi jox na ko jëndal timbre mu ne day dem domaine xaw ma lijjanti kayit yi waa jooju ma koy oo mujj mu boloka ma déggatuma ko. ba ma juddoo ba tey mosumaa dem tribunal le premier février bii bii bii deux mille vingt deux mille vingt et un xaw ma deux ñu nekk ci laa xëy di dem tribunal kama defoon loolu naxe ma ko ci xabru Seydina Limaamul Mahdi ñu koy àtte tëj ko ci problème mu suuf ba ma yem ci barki Seydouna Mohamed Chérif mooy docteur de la jeunesse te dafa am lu ma ko lu man ku ma yéenewul su ma la yéenee jàmm nga yéene ma safaan sax am na ñoom dañuy dogu mais dañuy mën na noo dogg ci juróom-ñaari sëñ Fallou lu la ñaanal ma ko mais man damay dogg ci Serif Ousseynou Laye docteur de la jeunesse xam nga damay dogg ci moom damaa pare woon man yàqu woon naa ba pare mu defaraat ma yëg-yëg boobu laa am ci premier jour bi ma njëkkee yëg ci moom damaa jooy ba sama xol seet dama génn dem sama yoon barki Seydouna Mohamed ma ni ko maa ngi ñaan yàlla na ma yàlla may doom ju góor ma tuddeelu ko te la ma fa ñaan yëpp yàlla may na ma ko waaw yëg-yëg boobu laa am ci moom moom mooy docteur de la jeunesse xam nga fii dañuy faj nit ba pare ñiy faj siti ay ñoom sidi ba dañuy faj nit ba pare nit ki taxaw di remercier ndax faj gi mu leen faj man nag kii daf ma faj ma yëg ko géntu ma janeeru ma li may wax bu fekkee du dëgg yàlla bu ma fekkee appel bi ci barke Seydina Limaamu def naa ay gëstu il paraît que sax dem naa ba ndekete Seydina Isaa Ruuxullaahi sama maam moo nekkoon soxnaam Ngoone Géey sama yaay tudd ay tëjjéen maam Ablaye Dieng di baayam maam Racine Dieng di maamam soxna su naan ndambaw caw xaagaan comme ñoom moo jur suma yaay dama xamuma ko woon sama maam pëndandooy bokk fa ñu tëddee ma jibril ndooy jibril ndooy ak làbba seeni ndooy ñoo bokk kon way wii du hasard du neenu neen gësu dama gon gësu dama dégg ñuy kii bu ma mësaan way man leen ba benn jour ibu seeni ñëw caaroy géej sama benn xarit bu may seet si maa ngi sol cap mu ne ma naa summi cap bi raam kooku dama koo dóor kurpeñ boobu xamuma kooku ba tey boo xoolee bopp bi am na cicatrice bu ci nekk butéelu coca butéelu boisson bu naan ba pare laa ko dóor mu toj boobu xaw ma woon ndekete yoo bala ngay xam nit ki li naan góor bala nga koy yëpp da nga koy ñam mais bala ngay xam nit am foo jaar ak moom ndekete yoo man li ma naan yëpp du ma summi cap du ma raam ay kooku baayam moo may moo may faj moo tax àdduna dafa xat kuy wax waxal loo xam kuy def dafa loo xam mais li ma la mën a xamal daal bàyyi laay muy Seyduna Muhammad man taalibe Cheikh bi ma la ko wax. Euh, euh, non man man man li ma man pour man li ma woy Chérif rek du leen man li ma woy Chérif rek laay euh, laay yashrifa wusinu laay leeral nga sa wutig maam ba nasaran baa ngi wuyoo lay mataar laay mamadu mataar laay senigo seydina limaamoy limaamo yaay borom yoo fi géej bay laaye wa taji boo daayala hiya ma saral insi wal inni rasulillahi ilaykum suma yu xaddisim nu xaali daw fii ci kambarin ma kañ maami serif wasinu nasaran baa ngi wuyoo lay mataar laay mamadu mataar laay waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan Mm-hmm. Mm-hmm. wax nga lépp loo xamante ne ne ba mm-hmm. war nañ nga dellu si waat tuuti si sa Prince Art tey moon Prince Art laa nekkoon doon jóob ak Bouba Ndour wëriw moo ko ne produire ma wër siw ma ne ma kaay mu produire la concours xeex si sibir moonu boole muy mille artistes ma ñëw gañe ko ñu ne ku ko gañee da ngay dem tournée internationale dafa gis Ndour featuring bi ma defee gis Ndour vitrine ñu woy Massamba Conta borom yetu xaalis moom moo tee sama loxo ne Sénégal ku doon woon ndaanaan ndaanaan baa ngi buuba reconnaître sama talent ñu bëggante lool ma jox ko cër mu jox ma cër te xaw ma noonu sax taalu bi Seydina Limaamu la barke Seydina Mohamed muy nit ku am te ma nit ma gëm suma bopp lool nit di nga yëkkati pour defal nit mais su yàlla newul kun du nekk loxo lu ci jóg li ci dese nekk te demaguma fen ma bi ma toogee nag dégguma ko ma nekkaat ci samay mbir musique ci lay xëy ba dee parce que musique moo ma teral musique a tax ma am oto Chérif indil ma oto terrain bi Chérif dina ko indiwaat ci ay nitam laa wax ci ay nitam xam nga nit ta ngay fasanteeg technique kóllëre bu génne àdduna mu jeex am mais am na ñoom kóllëre gin séq ak ñoom ba tey mi ngi am loolu mooy sama diggante maag Buuba Nduur bi ma toogee dégguma ko ma nekkaat ci leneen mais après bi ma nekkee ci leen ma xool musique léegi mi ngi yàqu mu ngi nax saay parce que euh, dëkk boo xamante ni ñëpp dañuy soo xàmmee fi kuy capp day jafe animateurs yi am ci part de responsabilité animatrices yi am ci part de responsabilité dañuy gis benn booy bu nekk ci koñ di way ñu bokk ci estaf estafam suñ xëyee moom rek la ñuy teg di ko imposer te musique léegi rafle nañ way booy déglu bay am cher de poule ñun ñëpp am nañ ay oreille musicale boo seetee animateurs yi bu ñuy anime sax pour ñu animé dëgg musique gu démb la ñuy teg kon musique bi ngi mi ngi yàqu te Sénégal puso bi warul réere ci ñu mujj ñu bàyyi concurrence bi musique du course ku si ne xam nga ku la mën fii ku ci ne xam nga ku la mën ah, et puis nañ gëstuwaat ñu xoolaat musique bi defaraat ko bàyyi tëkkale bi ñor bi dafa dafa gën luñ gësam wadd parce que da ngay gis nit def dem studio ñu defal la ay filtre ba nga ba nga yaakaar ne tey kii mën a way bu live jotee ñu wax la nga naan damay soog a damay def lii. man maa dugg Prince Art def albumu six morceaux ci benn fan maa fa dugg neuf heures et demi minuit sama album pare. maa dugg Prince Art témoins yi ñu doon répété moom lañ génn nii. soo dexe woon ba xiif ñu tegal sa plat préféré doo ko lekk ba ñënd bool bi way mooy sama plat préféré. aw mag non demee na noonu mais liggéey bi parce que dama pare am bu desel di am moom ma desel quoi lu ma waroon def ci trois mois ma def ko ci benn fan kon kooku moom la du ko critiquer lu ma bu ma waxee ci moom sax sénégalais yi nañ ma xoolaat parce que man maa ni koon ba dara doonulee dara ñëpp daw ma mes ne menteng yow laa gisoon nga woon ma yoon wi kon du ma gërëm ba pare di xalaat mais lébu laa man maa ngi dëkk ca déem sama yaay guy salaan sama papa yàq jëf lébu fukki pénc ak ñaar laa du ma wayee di loo suma bopp personnalité bu nekkee ci cent un milliard a ngi ci man mais sekk nag koo jegewul doo ko xam barke Seydina Mohamed sant sunu borom am na ñu def dix-neuf album amuñu kër gu mu dëkk amuñu oto bu nu dugg doonuñu ay responsabilité man ki ma way xamuma ko dama toog rek mu neex ma mu am fu mu jaar ak man ma way ko ci lay dund ba tey matul cinq jours lay dox fii Kër Masaar ànd ak sama soxna di dem jigéen gis ma ne ma dama doon ñaan yàlla daje ak yow ak beneen waykat bu naan njóogu afia mu ubbi posotam la fa nekkoon yëpp xaw ma cinquante ñaata mille mu yëkkati ko jox ma ko sama morso tey boo ci teg day mel ni tey laa ko way mais musique léegi moo am kumba am ndey ak kumba amul ndey mais man xuux dàqu ma musique damay way ba dee musique moo yor sama kër heure bu ma xëyee damay way su ma wayul sax kuy def anniversaire maa la fiy defal ay video nga koy yëg muy am serre de ma ci faj su may soxla relation bi mu ngi ci mais nit nag doo ko topp doo ko topp mënoon man loolu dafa ne mënoon naa way shérif li ma way bàyyi laay keneen doot doo keneen dootu ko fa way de mais du gaaw may wër kër laayeen kër laayeen yi buntu kër gu ne ma toog fa mais maa ngi toog suma ruq garder suma personnel néew ma du ma ñaan lu ma waaye jox nag ma jël ku bëgg jàpp ci métier bi la porte est ouverte. ñu jeexale ci euh, dernière wax mois jigéen ñi ban jigéen ñi. waa jigéen ñi du leen jox message ñooñu yàlla moo leen njëkk a teral alxuraan li muy rëy rëy yàlla jigéen ñi la ci sagal. mënuñoo diicaduma mënuñoo maye jabar ku fi tekki yorum réew jur wàll jur xut bu zaman jur yonent jigéen nga mais li ma leen di conseiller mooy nañ gën a xam seen bopp surtout jigéen ñi nga xamante ni danoo gëm affaire matériel jigéen dërëm perkaal bu weex la moo ko artiste ñoo yem lu ko taasal dafa yomb nañ def nànk bu njëkk danga daan dox di dajeek wàll yu mais tey pour nga dox ba dajeek nitu yàlla dëgg sax day jafe parce que jigéen mooy buntu kër kër su amul buntu kër ku ñëw da ngay dugg te jigéen ñi ñooy suñu buntu kër nañ gën a valoriser seen bopp yenn yi bu mu leen jaral ni ñu sàmm seen bopp fonk seen bopp te xam ni yàlla daf leen a sagal ñooy ñooy jur ku ne ñoo doon lu ne suratu nisaa yi dégg ngeen ko kon sama mbokk jigéen ñi bu leen ñàkk tax ngeen di ñànki gëm leen seen bopp barki Seydouna Mohamed sunu maam soxna jaara dafa dog woon ne moom mooy jur Seydouna Mohamed mais mu jàpp ba sell ubbi kaamil bi ba toll ci maakaana muhammadin aba axadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatama nabiin mu ne ah kon man du ma koy jur sayduna muhammad mais dina jur koo xamante ni fu sayduna muhammad teg tànkam ba teg dina fa fa teg tànkam moo tax mu am xaadimu mu am soxna faawaat di moo tax mu jur mu am seydil hajji malik borom ala daaru dunia daaru nawka sunu sunu sunu maam kumbandooy kon jigéen day xam mooy kan leetarum ndey doo koy jàng na mbind mi leer kon yéen jigéen ñi xam leen fi ngeen di teg seen tànk pour seen doom ëllëg bu ñuy bind mu bañ a gàkk wala ñu bind ba pare naan almagom bi damaa jum waa di tàggu ñëpp nag <laughs> di ñaanal sama yaay fi mu tëdd yàlla na suuf oyof ci koom sama papa fu mu tëdd yàlla na suuf oyof ci koom ci barke Serigne Babacar Sy du nuyu ñëpp du nuyu jaami yàlla yi nga xamante ni dañ maa safoo lool lu may def ñu ngi ciy dugal seen loxo di waaj appel bi di leen wax ni dem leen wuy jinjin sa woote ba bàyyi laay mooy muhammadu rasulilaay waxuma ko ngir leen barki yonent dama am ci moom loo xamante ni ñu bëri amuñu ko ci ñu moom taxamuñu xamuñu mais sénégalais mais sax man man su ma ñëpp gëmee sax man day métti parce que yonent bi bu njëkkee taxaw woote dañ ne ko haza sihrun mubin bàyyi laay bi muy taxaw di woote ay mbokkam dañ ne ko waaye kii daal dafa dof loolu lay tàggatoo ñu wàcc appel bi la la 5 chauffeur yi ngeen def nànk yéen ñi nga xamante ni nag appel bi moo leen yóbbu ngeen dem ci jàmm ñëw ci jàmm ñi nga xamante ni dañoo dem pour tafu poosu jàmbur yi lu leen fa fekk ñoo ko teg seen bopp wasalaam Sénégal yal na leen yàlla suturaal réew mi ñu ngi leen di bàyyi xel sentu asamaan jarta buuxante fu waaye taxaw di nga am place mais yéen nit ñi ñoo leen bàyyi xel loo wax dëgg la keroog bi nu may primé ci sama morso bi ci Fespaco bi amoon fii laa ko jëlee loolu tey ay tubaab ñoo toog tey morceau bi ma def ay Aïda Samb ñu joué film au Zeynul Zeynul Oma ma am ak ñoom raconte loolu mooy musique tey lu ñuy def nasaraan si sax dañuy yëg li may def di woote bay am ak mon relation wasalaamualeykum wa rahmatullah yow it yal na la yàlla suturaal sunu caméraman bi yal na ko yàlla suturaal ci barke Seydouna Mohamed lool leen song yal na ngeen ko daan allah. merci beaucoup euh, mbokk internet yéen a ngi woon ak euh, Djibril Diop euh, dégg ngeen li mu wax donc ñu ngi jox dig daje mbokk internet yi ba beneen yoon incha allah ok merci. يا ما خسر الإنس والجن رسول الله إليكم أجبار